ab jullit sëñ te doxee ceebaram ci mel ni mbir bu dee wàllu adduna bu ñuy tànn njiit nga xam ne toll nañ ci jamono yi ñu toll toll nañ ci tànn njiit toll nañ ci tànn tànn ndaw yu nu nekkal fa nga xam ni fa la ñuy waxee fa la ñuy dogalee ni réew fa nga xam ni fa la ñuy dogalee ni réew miy doxee toll nañ ci tànn ndaw yooyu ndaw yooyu nag sa boroom dara ni boo koy tànn na nga ci tànn ku jub ku ma bàyyi xel man koo xam ni buy wax dana ma ci seet nga tànn kooku boo tànnee ku mel noonu nga xam ne tànn nga ku jub ku seet yàlla ci li muy def kooku lu mu lu lu lu mu fa def njub yaa moom yéen a koy bokk yi mu ci am da nga nga ko caax lu mu fa def ci sa yoon du ca ne ndax yow ba ngay tànn yàllaa taxoon ngay tànn boo tànnee ngir sa coobare sa intérêt sa bëgg mu fa def ci safaan yaa moom a koy bokk waaye lu mu ca def ci yiw doo ci am dara koy tànn yàlla taxut te yàlla lu mu taxut amu ca njëriñ amu ci soxla kon man nit booy boo ci boobu perdant boo ko kenn yóbbee sa bopp nanu xool ni ñuy tànn ñu nekkal ñu fa nga xam ne fa la fa la fa la ñuy dogale ni réew mi doxe ñu tànn ñuy jub ba a tànnal sa bopp ni nga bëgg sa mbokk sa xarit sa intere ku lay jox déedéet pour xool naa xoolal ci nekk si yàlla bëgg nga tànn bu ko defee réew mi dana dox te yàlla dana la fay kon nam dox ci noonu nga xam ne ab jullit amul amul amul amul amul amul sañ-sañu dox ci ni kon nekk ci wàllu ci wàllu diine du lépp lu mu doon lu ne lépp looy bëgg a dugg yow jullit bi lépp looy bëgg a dugg jéem la xam na ko yàlla bëgg ndax boo ko xamul it am na ko ko xam boo ko laajee na la wax ah lu mu doon nag kon nag naan fexe ba góorgóorlu ci di teg ci yoon di seet li yàlla bëgg nu di ca dox te bañ di dox ci nu bëgg li nu bëgg li nu bëgg suñuy bakkan al amaaratu bi suu la kooku da lay digal rek ab sabaan bànneex rek la lay digal kon nag bul seet li nga xam ne moom la bakkan bi bëgg waaye seetal li waroon bëgg nga di ci lu yàlla na yàlla may tawfiq yi tax